waaye sa goro waxuma la ndaw si de waxuma la ndaw si de waaye sa goro bu fa xew amee yow na nga war a demee sax bokkul ak yi xew yi yeneen xew yi ki la may jabaat waxuma la ndaw si de waxuma jël naa ndaw si ñi la may jabaat ni ngeen war a respecté sax dafa war a ëpp toppatoo leen fonk leen bëgg leen wa kuy wëlis ñu la fay bu sa xaju ko réer nga wëlis bu seen niwi mais boo respecté wul kii ñoo respecté ñee mais am soxna respecté woo ko faale woo ko am dëkkër tamit respecté wu la faale wu la loo fay def Ousmane da ngay waaj a duggaat. nit day am ful la. Ousmane da ngay waaj a duggaat amul a duggaat. si respect la si la. dëgg kii di muñ ba xëy faatu tamit ba am goitre ba dee jigéen teg ko sa kaw lalu jabar. kooku bu ci yamee saa yi na dem ñibbi. d'accord kooku bu ci yamee na dem ñibbi c'est dommage que téléphone mais def leen seen commentaire seen TV l'officiel Mohamed moom dina ko liir wax ñu nan ngeen gisee yëfi Bachir ñu ngi lay nuyu bu baax kay xam naa ne boobu toogoon dina neex mais mais Mohamed tafsir yéen ñëpp bëgg naa ak maam Sidi ma xam seen xalaat ci lii léegi lii léegi yow Mohamed tey li na ci réew mi ci ay góor yoo xam ne ay doxaankat professionnel lañu nga xam ne am nañ ay fukki gel léegi yow kooku mënoo koo setal ndax mi ngi njaaloo wala njaalowul munoo xam nga xam nga tax ma daaneel question bi nga ñëw yàlla dafa ne wala taqrabu la wax waaw wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa maqta wa saa sabila lii la yàlla wax bu leen jege la wax mm-hmm. waa kii dem di doxaane di mm-hmm. wéete ku jigéen ki di ànd ak moom di dem kooku mënoo koo weddil dara moo xam ne la nekk ci réew mi tey ci ay sëy yoo xam dafa yëngu nga xam mm-hmm. tas na nekk ci biir kër yi Mouhamed demal tribunal dafa nekk ci ay dossiers yoo xam ne gaa yaa ngi dem ñiy tas sax bugguñu gaaw a tas ndax kaa yi ni mu leen jaaxale li tas ba pare ni mu toll waa léegi bu Ousmane ne mhm. képp koo xam ne jàpp nga sa ci kër muy def lu mel ni tasaat mbaa caaga juru ñu bari ci réew mi Mouhamed ñu baal ma dafa am loo xam ne sax d'accord ma ci Seyda mhm, muy lan mooy bu la sa jëkkër defee lu la naqari mooy fekk nga jigéen ci sa kawlal mhm. bu bokkul ak yow Mm-hmm. danga war a tas ànduma mm-hmm. ci mm-hmm. bu la sa jëkkër saaga dangaa war a tas ànduma ci dëgg la parce que alkamaalu lillaahi lillaahi nil na parfait njuumte bi sa borom kër def Seyda muy benn laaj ko lan la ndax dafa am lu ma manqué Kaolack bi njuumte la xaaral ndax mën na nekk xam nga waajale Ousmane dama <laughs> na nekk njuum ci parce que damay bëgg a déglu ndax ñuy wax <laughs> xam nga waajale dafa def ni mu toll lu tax léegi ma wax la benn aaya alxuraan yàlla ni du ma jël bàkkaar yaa sayda di ko sëpp Mouhamed Mbaye mm-hmm. du ma jël bàkkaar mm-hmm. Mouhamed Mbaye di ko sëpp yaa sayda mm-hmm. xam nga tey bu demee ba Firawna mën a ànd ak Asiya bokk na ci maandute yàlla du xañ Firawna bànnee xam xam nga tax du ko ko xañ booy bu bëggee sëy mu am lu ko roofal uutalal ko yaa eh, nu mu tudd Asiya parce xolal yàlla ci maandutem mu bind ñaari jàmm Ousmane mmh. mmh. dama lax ni la bu góor juume jël mmh. jigéen dugal ci sa biir kër balaa dara tew cause bi lan la ndax dama am lu ma manqué. lépp lu mënti ne cause boo ta am indi gel ci biir kër gi. waaw mosoo ko yow da nga naan boo jàppee sa jabar muy jël kër muy doxaani ca obet sama. xaaral xaaral ñu soog a lijjanti nag. déedéet déedéet xam nga non duñ mën a dem. duñ mën a àndoo départ wax ji dama am lu ma la indil. xaaral mu daaneel waa ji dama la ko indil. xaaral mu daaneel dama la indil na la. waaw xaaral mu daaneel la mm. mbonu ndaw si nangu ñu indi ko ci néeg tegal la mm-hmm. ma jéggi escalier boobu parce loolu jàll na ba pare wax naa a bon ñoom ñaar nga ni. gën a bon ñoom ñaar ñëpp a bon. ku gën a ku gën a. amul ku ci gën a bon kiif kiif ñoom ñaar ndaw. man man ku jigéen ki laa gën a. ki am jabar takk ko indi ko am lal indiwaat fa jigéen. ku jigéen ki laa gën a mer man dafa ki laa gën a nga def waaye. mer Ousmane kee gën a bon. Ousmane boo demee seen kër. wala ñi lay entourage bi lay wër naa la tasal tasal tasal gis nga boo tasee dañuy continuer nekk ñoom seen ay sëy mu neex mu naqari xamoo lu mm-hmm. Ousmane nit du demee mm-hmm. xelu jàmbur ci mm-hmm. ciy demee sa parce que àtte sëy yi ci xel yi am na koo xam ne am na lu mu nangu am na koo xam ne nanguwu ko xam dire que waaw nit boo ko conseil ci ni bu doon man damay tas déedéet parce que na koo xam ne jëkkëram rek la bëgg ak lu ko jëkkër mën a def ci ak mën na koo muñ jëkkëram kooku boo ko nee tasal ba génne ko ci kër gi yaa ko yokku fitna bari na yaay ju jël doom ngir met delloo këram di foog ni lu wër lu neex doom lay sanguwaatal soluwaatal melaatal ni nga meloon keneen a ngi fi fekk jëmm jëgay defar waaye defaroo xol ba. xol ba jëkkëram rek la bëgg. da nga koy bàyyi ni ko loo xalaat nit dafay am. sixième sax lan nga xalaat xaaral nan ngay def. waaw mooy bett nga sa jëkkër Ousmane. waaw ci sa lal. Mm-hmm. mënoo koo muñ am nga waa dem seen kër toog. Mm-hmm. say mbokku ñëw. Mm-hmm. nga ni leen nangam ak nangam taman pour man jigéen pire. wartoo ay mbokkam ba ñu toog mhm. muy xas lu jëkkëram dëgg la mhm. kon mi ngi noonu ginnaaw jëkkër dëgg la mhm. gis nga baay ak yaay ni ñu fooree dëgg la dëgg la baay ak yaay ni ñu foore yàlla ni la bu la bàyyi ak yaay woo woon jëkkër ni la mm. demoo sa bàyyi sax bu faatu woon sa jëkkër ni la doo génne néeg bi tant que moom yàllaa ngi lay bindal maanaam la yokk sa jëkkër ni ko ci biiri mbokk doxalal doxalal Mouhamed maanaam la yokk sa jëkkër ba lay ba yaay ko yay jëkkëram ci biiri mbokk dëgg la moo tax jëkkër ji war a nekk ku baax fi yàlla teg jëkkër ni mu toll moo tax jëkkër ji war a nekk am maam moo tax ma ne mais kooku bu nekkee ne ab baadoo la ak ku bon boo ko toogee tamit yaa ngi posé ma ne la jabar ji bàyyi ba guddi mu toog ak jëkkëram <laughs> toog ak jëkkëram waaw ni la lii nga def mhm. fan nga ko teg parce que mhm. lan moo tax jaam di def yàlla lu rëy ba fa rëy yam mhm. yàlla ni la jéggalu demal ci lax dara yu bii wa suuratu tawbati an nadama ala ma faata wa niyat ala yaudu ila zambi fi ma baqiya min umri wa an yatruka al maasiya fi saati yàlla nga wax yàlla nga wax te ñu duñu ay yàlla waaw mais yàlla nga wax jéggal sànq rek avant ñu commencé na ji. waaw jéggal waaw waaw jéggal mais jéggal waaye ci mbett ci la la mais yàlla duñu ay yàlla. ndax daa war a def wala a toog yow nit nga da ngay mel ni na ci. mën na la bu ci xool loolu. bu ñu xool loolu avant ñu commencé ay nit lañ dañuy mer. Ah, mais ay nit lañ dañuy mer dëgg la dama ne góor mais waaw dama ne góor fi ko yàlla teg. na teg foofu boppam. jeex na góor na respecté soxnaam. góor fi yàlla teg na xam boppam bu baax a baax nee na kenn wàcc sa xel est-ce que góor mën na fidèle. ne góor mën na fidèle. waaw ah. fidèle comme. dañ ne góor ko bind ci. góor ñeent lay fidèle soxna am waaw ñeenti soxna lay am. pourquoi ñu ne yéen ñu bàkkee leen yéen mënu leen a final. parce que ñeenti soxna ñu war am. dañuy tax yéen du ngeen final hmm? du ñu final comme. maanaam jub. ci jub mais góor dafay jub. yab ci benn am ñoo xam mënuñu ko. bu ñu amee benn ñam ci benn bu leen leer dañuy takkaat ñu dem ngoro ci indi wa man damaa ngi xool Ousmane mel ni xaw <laughs> mooy may bu Sicap Mbao ak bu Fass Mbao. mais yëngal tey bàyyi ngeen ko yëngal. kenn du àtte ci xelum jàmbur kenn du àtte ci sëyu jàmbur mais da ko wax lii yoon. am na ñoo xam ne nii fay du ñu fay bu ñu xasee ba fay jeex na am na ñoo xam du ñu mere seen jëkkër du ñu weer seen jëkkër bu ñu xasee bay jeex jeex na mais problème moo du sa jëkkër dafay heure góor ñi du ñu ay buur góor du duñu ay yàlla ñooy ay nit lañu mais sang lañu mais sang lañu ñooy jigéen sang la ñooy suñu ki la jural sang sang la jigéen a gën a doon sang sax arijaal la yàlla wax ñun góor ñooy sang ñooy suñuy buur ñooy suñuy sëriñ waaw sang nu war a mel daa war a nekk sang daa war a nekk sang waaw mel na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga ko roy ko la alaaj maa li waxoon dama teg mais su góor boo xam ne ne yow ab firaw na la même bu nekk am iblis sax daal toppatoo ko toppatoo ko même bu nekkee am iblis sax mais bu mu tax mooy mu jéggi ci loolu def lu mu war a def mais firaw na am na Asiya d'accord ndax dañ daan jigéen dafa war a baax rek am jëkkër ju baax d'accord ndax jigéen day baax rek ni jëkkër ju baax lay am pourtant yàlla ci nattu yi mooy nattu nit ku bon sax est-ce am na mais di def ay yoo xam ne nii mais du ku la ci fekk mais nit du nekk ab Mouhamed ab ab ab raxasit Mouhamed yenn saa nga gis jigéen yoo xam ne day baax loolu yàlla mooy nattu d'accord xam nga yàlla dafa ko ci alquran mu ne tilka rasul faddalna baadahum ala baadin minhum man kalama Allah maanaam yàlla mooy séddale ku nekk ak ak sab cër gis naa ci réew mi ay jigéen yoo xam ne jigéen yu baax a baax mais am nañu ay ñetti say tas tas moom du cadre ndax jigéen góor yi nga xam ne. la ñuy tasante moom ñuy dajeel. Ah, kon affaire nekku ci tas. nekkul tas d' accord nañu. mais dama ni tey est ce que doo gis jigéen joo xam day baax lool. yàq sunu borom bëgg koo liggéeyloo. bëgg koo liggéeyloo. tasante góor gu tàng. boole ko am Cheikh Diouf. waaw mu tàng xam ne lii lay def. mu tàng ndax yow yaa ma wax ne ma. am na ko def lii fekk jëkkëram. ak gelam ci kaw lalam. mu sàng sutura. jëkkëram. Mouhamed est ce que amul jigéen yoo xam ne tey pare nañ pour sëy pare nañ pour baax pare nañ pour am doom pare nañ pour def ay sacrifice seen jëkkër lu ne lay def mais Samba du dégg Demba du dégg. yow yaay jóge sa kër dem seeti sa sœur gis ko xool ko xam ne kii mi ngi ci ay difficultés yu metti mais du la ko mës a wax. Mhm. parce que dafa pare. Mhm. liggéeyal yàlla. mu xam ne jigéen jooju nit ñi déglu kooku loo koy wax. parce que dafa am lu ñaaw am lu ko gën a ñaaw góor guy naan sàngara dafa ñaaw waaye jigéen juy naan moo ko gën a ñaaw gën dafa am góor guy tox yàmba waaye jigéen ju koy def moo ko gën a bon a bon am na góor gu doon wër caga exemple dugg ci baar fekk fa jigéen jaxasoog moom génn guddi di sangu xool ndaw si cofeel dugg mu bàyyi bàyyiloo ko loolu def ko jaamu yàlla jël jigéen jooju def ko sang tey ba jigéen jooju jural ko ay njabootam ci biir kër am jigéen joo xam ne lii ma lay wax yàggul sama yoonu màkk bii passé la may waxtaan ak jigéen mu ne ma sama jëkkër dama ko fekkoon muy naan sàngara dama ko fekkoon muy tux dama ko fekk muy def nangam sama première gisee ak moom bi ñu jàkkaarloowee laa ne ko bu fekkente ne da ngay naan jàppal ni sa dernier kaas mooy bii nga guux mhm. bu dee da nga daan tux jàppal ni musuma koo gis li des sama dund tànk maa ngi nekk ak yow dootuma ko gisati ndabu jigéen mhm, mhm. jëlee la fi Seyda. waaw parce que buñ la waxee ne la hmm. Ousmane duggal ci néeg bële nga yee ñi nelaw boo demee fekk ñëpp yeewu ko yee. kenn hmm. ça que nit sëñ si Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax ni. billaahi ren ba déwén bu amul lenn lu soppeeku. ci jikko hmm. jàppal ne kon yow euh, ni mala yi sëyee ci seen ci seen baaru xar ya. jàppal ni loolu nga am. Ousmane góor jigéen bu bettee jëkkëram ci naka sudul noonu. ci lalam ci lu mënti doon. daanaka damay wax ni. jàmbaar la lool pour mu dal. ndax dafa war a yuuxu ndax dafa toroxal jëkkëram. mais jigéen jigéen jigéen bu toroxal jëkkëram Ousmane. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñibbi du solution bi. Mm-hmm. xam nga li solution bi. li solution bi waxtaan. waxtaan léegi boo waxtaanee soppeekuwul nag. wala bi nga nekkoon baax na di demal. bu ci Ousmane teel maa ngi ñëw dama koy bàyyi moom yow mais demal. mais xaaral xaaral na xam daal yaa ngi fu neex. waaw am jigéen yoo xam ñu ngi lay déglu. léegi rek du ñàkk mu ngi may seetaan léegi rek. bi may xëy si pourtant di toll ci jaaykatu café bi. benn jigéen dafa nekk bu leen ko dugalal. léegi rek xoolal ma borom kër. oustaz lenn rek laa bëgg sama àdduna wutal ma borom kër la ma wax ni ma mm-hmm. taalibe cheikh laa bëgg mm-hmm. bu ma jaamoo yàlla mm-hmm. ma tontu ko vocal ni ko jëkkër kenn du ko wutal kenn ndax bu problème amee man dootuma ci set xoolal koo doyloo nga sëy moom loolu laa ko tontu fi nga nekkoon mais Ousmane dama bëgg nga xam ne tey jii tey am na jigéen am na gis nga jigéen ju dal jigéen ju dal mën na def lu ne borom këram Mm-hmm. yenn saa yi góor day baax Seyda. jigéen ñoo yàq ko ba mu yàq yaxet. tourmenté ko yàq àdduna. yàq ci ko mais lay sàngara seetaanoon nga ko fi. Mm-hmm. pourtant ah, jigéen na ko soppi ci film jigéen na ko soppi defaraat ko. na def ko ni mu mel. Mm-hmm. mais tey man ñaata nit yoo xamante ne tey xam naa leen. teg naa leen bët. ñu meloon naka sudul noonu. ay ay ay jigéen ñëw. billaay seen dal ci seen baax. dañ leen di fekk ci bitu ñu màndi. ñu téye leen ñu tuur ndox seen ay tubay. Mhm. ñu téye di nab nabal di defar di jag-jagal ba mu baax Ousmane dama ni la bu fekkente ni mooy nga fekk sa jëkkër def ko ci sa kawlal mhm. nga ni jëkkër jooju bàyyi naa ko dem feneen ñaari mën am mooy nga topp jëkkëri jaambur fii bari na jigéen ji topp jëkkëru jaambur topp jëkkëru jaambur topp Seyda da ngay mhm. ndax yow ak waa ji li ngeen jot a dem topp jëkkër jàmm te yàlla buur la wal kaazimina minal wal al ghayd wala afina ni nas wallahu yuhibbul muhsinin non non bëgguma mu dàggale demal foofu Ousmane dama ciy dem di dem ci jëkkëru jàmbur pour lan di wut lu ko neex li ngay neexale ki lay atté boko ko ki lay dor ken du len dégg Ousmane wax ni ki nga xessal ba njabotal wala benn doom gen am yeen ñaar mm. nga gis ci mom naka su dul noonu am mental boy doxé ak mom ba yombal xiyam dootul dara nga daane fa mo jox Ousmane xam nga jigen wa mm-hmm. parce que mm-hmm. njuumte bi ma ne mm-hmm. xam nga gor lu mu àttanul mu def njumte nga nopi day dé deug la gor mu def njumte gor amul lu xal len rek la yàqamti mu attaqué la ngeen xolo mu jeex mu di jot mu raay la sa bopp ni la yaay sama xarit mais tant que yaa ngi noppi yéen rek yéen de mm, mm, mm. dëgg la silence moom góor àttanu bëgguñu ko xoola na nga yëngalu mu yëngatu mu jeex mu jeex Mohamed ah. jigéen ji nga xam ni mm-hmm. moom bëgg na jëkkëram ci biir xolam ah. nopp jëkkëram gëmewu ko ah. kii pare pour joxe sax bakkanam pour jëkkëram mais est-ce que dafa araam wala dafa bon jigéen ji joxe pare na pour joxe sax bakkanam pour jëkkëram. kay moo baax nopp jëkkëram dafa bëgg jëkkëram. kay moo baax baax bëgg liggéey yii yëpp da koy gis jëkkëram di ko def mais kenn du ko dégg ci gémmiñam jigéen jooju loolu baax na wala baaxul. looluy jigéen Seyda. Seexul Xadim mu tedd mu baax mii bi muy ñaan wa tawbatan xubilat maa miknatin rufiat maa zawjatin saluhat bi diin eh, kon kooku ci sang jigéen ñi la wal taxla mi am na jihaad niswati fii tahaat aswaji duuna ci sang jigéen ñi ci sangu jigéen ñi la ko réew mi am na ay jigéen yoo xam ay sang lañ sang lañ Seyda da nga fay dégg da nga fay dégg benn yoon bu olof di waxee ni Euh, euh, euh, bu ñu dàkkantalee doom ci baax dàkkantalewuñ ko ci baay ci ndey lañu koy dàkkantale dañu wax ne ñaar bu ñaar bu ñu sottee benn société waaw bu baaxee ñu jiiñ ko kenn ki bu bonee ñu jiiñ ko kenn ki kenn koo kookee war naa góorgóorlu